alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. beneen bi ci des mbokk taalibe yépp ñu ngi ànd di jaale euh, sa mbokk sa xarit sa. àndandoor ci yàlla muy Cheikh Abdoul Barham Cheikh Abdoulaye Wilane ku nekk xamoon na ko ci buntu Maayra Fall kon ñun buñ amee kuñ koy jaale rek yow la doon kon ñu la koy jaale si turu mbokk taalibe yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi di delloo jaale ñun itam di wax ne ku baax la boroom xam-xam la doomi soxna la ku jokk ci maam Ibra Fall la ñu bokk ko maam moom ku ci nekk jokk ci moom ñu dajal maam Ibra Fall na ko jiital ko na ko yaay njiit ci ñu ànd ak man buñ bu ndikkee ba xakk fii nii yaay njiit yaay wax man boo fi bàyyi ko yow yaay wax ak muy ku baax guddul fan lool waaye fan yu gàtt na waaye na ci faydatu tijaan bi ni dugal na ci nit ñu bëri yar na ci ni ñu bëri bind na ci ñu bëri bëri bëri bëri ñu ngi koy ñaanal yal na suuf sedd ci kawam lépp loo xam ne lii nii yaakaar nañ ko ci moom yaa na yàlla defal ñu lu ëpp loolu galabu mm-hmm. ko fër yaa na ñu yéexee ñu ngi koy jaale di ko jaale njaboot yëpp mm-hmm. rawatina njabootam am Ibrahima Fall rawatina ñun ñi nga xam ne ñu ne ñoo bokk mm-hmm. mboolem mu xalal nekk rek te so jokk ci maa refa maa ko yónnee mu ngi tam jaale boppam barke Cheikh Abdoulahi Wilane suñu xàpp bosom yaa na sorowaan leen samp yàlla bu mu yàqu balaa ñuy dem yaa yóbbu yóbbul bu yàlla gërëm yaa nañ ko ko fekkee suñ nëbët ak suñ bëgg-bëgg ci maahi rafal yaa nañu ko yàlla bool defal ku ci nekk ba mu def ca lam man ba maahi rafal gërëm bàyyi gërëm soxna Amady si dañuy gërëm yonent bi gërëm yàlla gërëm jox ñu fay mm-hmm. jërëjëf